Adja tey li ñu indi mooy euh, ñaar la ñu indi kenn ki Assane Diouf lay wuyoo su ci xajee ñu indi ko su ci xajul ñu bàyyi ko ba jeudi incha allah ginnaaw bi ñu yàqee ay waxam ci li mu wax donte ni fi mu toll nii ma nga ceeb garde à vue euh, tey nag la war a jàkkaarloog procureur est-ce que nag dañ koy yóbbu mandat dépôt mar détail yàlla ba mu ci am yàlla dellu ci njabootam mais lu mu ci mën a am daal vidéo bi mu génnee waat mën na koo jural ñu téye ko su fekkee ni la muy wax dëgg la ndax nee lu la. Mm. beneen bi ci topp wala boog li ñu bëgg a waxtaanee mooy euh, Modou Fall booy Modou Fall bi nekk TFM te ñu naan ko oustaz ah waaw Sénégal moom bu dee mandargam oustaz moom Modou Fall du oustaz waaw bu dee di ay critères yi ñuy tànn xam nga tey ba dañuy wax nit professeur day fekk nga àgg fi ñu la war a waxee professeur bu day fekk bu ñu la wax comédien day fekk nga nekk xam nga Sa Ndiogou mi mën nañu ko wax kii journaliste waaye man kenn suñu maa xam journaliste ndax jàngu ma ko dégg nga de may mën a wax ay kaalaay traité ak ay kenn xamut booy Modou Fall du am na maanaam nag jàng na xam-xaala xii la non xar damay kii pourtant non fi ma jëm dafa baax ci moom de. c'est-à-dire boroom xam-xam la. jàng na góor góorgóorlu na ba dem daara góor góorgóorlu ba tabax daara nee na ma ngay tabax daara Marième Faye saal jox na koy millions yu bari daaw yàlla na yokk daara ja pare kon mi ngi góorlu ci diina pour mën a jàngale Modou fal nag dafa am lu ko dal ci internet bi dañoo toog di waxtaane sëñ Touba waaja ni ku bëgg sëñ Touba jógal taxaw pour ñu màggal ko am lu ñu moo du Fall mu génn te ñu bari xamuñu ni woon ni dañ koo woo pour mu génn ñu bari dañoo foogoon ni daal sëñ Tuubaa mooy bineegar xol bi hmm. moo tax mu génn léegi nag mu dem xooli vidéo bi waral coow li après ñu dellu siwaat daan ne ndax ko ci jàq ba wooma mbaa nga am aajo ba wooma bu ma dikkee nga xam ne awma borom kon sëriñ Tuubaa amul morom dama bëgg nun ñëpp ñu jug taxaw Alaaji Cheikh Diop dama bëgg nun ñu ci saal bi ak ñi ne ci saal yi dañu seetaan ñépp maase jug taxaw tey dama bëgg fii ci quartier général ñu delloo Serigne Touba njukkal man maay dëbbe waxuma waa saal bee may aw àddina laa bëgg ñuy wax baat bii may wax ba ci ñi ci seeni saal di ma seetaan laa wax ñépp ñu maase delloo njukkal Serigne Touba jërëjëfati Xaadim voilà mi ngi noonu vidéo bi moo def tour ci réseaux sociaux yi benn waaye nag ki ki maanaam daal ka monté woon vidéo bi Youssou Ndour bañ defoon loxo ba loxo boobu ñëwaat fii maanaam ñuy wane daal Oustaz Modou Fall biñ ñee jóg leen ñu màggal Sëñ Tuubaa fi mu toog la toog jógul nee na ca saasa nag lañ ko woo ni ko toj nañ sa oto sàcc nañu la fa nekkoon ci la jóg kon pour xamal nit ñi daal Oustaz Modou Fall dafa jot coup de fil ci li ñu wax nit ñi man nag gëm naa ñu koy wax parce que euh, montré nañ ay vidéo ñu ni daal moom la mais lu mu ci mën a doon est-ce que jaroon na di ko attaqué que dañoo tudd sëñ Touba ni ko jóg leen ñu màggal ko jógul est-ce que loolu jaaroon na ko Omar bun Xattaab xam ne déjà kii nit ñi ñooy interpréter ni image bi amee lan moo ko tax a jug ak loolu Modou Fall moo ko moom mais dañuy doyloo rek li Modou Fall wax ak ñi ko layal mooy dan ko woo mu jub daaw nag euh, nee woon nañu otoom lii moo ci xewoon ren tam otoom li xewaat na ci est-ce que nekkul dafa bëgg beneen oto rek bu bees waaw ah, loolu moom maa ko yor nee na kii na de nee bu yéeg la ah, damay laaj rek waxuma de damay dawal moom du oto léegi nag li jëm ci lii pour man eh, ay détails la jër woon di topp banaan oustaz Modou Fall lu tax mu jug ak eh. lu tax jugul parce que nit ki fi des fois bul bat science maanaam bul yóbbu sa xel foo xam ne waru fa egg yow rafetal njort maanaam njort rafet dafa bokk ci ni jullit war di doxee ci digganteem ak moroom mooy jug na la ko yëkkati moom mooy téléphone ak lu mënti doon mais aussi tamit lenn mënoon na am ni média di doxee am na micro yi ñuy branché gars yi des fois am na si ñoo xam ne du mën a jug. non moom assez ak ku ci mënti do ku mën a doon rek même bu woon moom mun na tombe ci keneen. koo xam ne mi ngi toog comme le présentateur jug fi muy toog fi mu toog mu mun fa jug parce que nit ki ngant sax mun na ko tee jug maanaam nit mën na am ngant mais des fois il faut que aussi ñu xam ni ci télé la ñu ne. ngëm-ngëm da problème mooy Omar maanaam euh, cest à li nga ay mooy bi ñu nee jóg leen ñu pour pangal sëñ bi boobu lañu moom jógul dafa toog mais bi ñu ne ko kir sa oto bi toj nañ ko moom dafa jóg c'est-à-dire loolu la gis ci image yi waxuma nag ni ah. dafa bañoon màggal sëñ Tuubaa mais bi ñu nee jóg leen ñu màggal sëñ Tuubaa moom jógul fi toog mais Modou Fall mais bi bi mu jotee pour fil toj nañ sa oto moom dafa jóg ñaata yoon la toog Pape Cheikh Pape Cheikh di tudd Sëriñ Tuubaa wala wax loo xam ne tey jii keneen waxu ko ci ah. des fois des fois il ne foo xam ne wala ñuy bëgg a créer la confusion ci yenn yi jaru ko jug na moom moo xam lu ko tax a jug jugul jug na mais dem mais am na ñu jug taxaw. justement sax mais moom tey jii bu dee moom da ngay màndargaam jugam dem maanaam day mel ne yaa ngi jox importance Modou Fall importance mu ñeneen ñi amul béréb boo xam ne la fa ne ëpp na fukk ñëpp jug kenn jugul ngay lijjanti. lu tax jugul lu tax jugul. moo ngi wane ni kooku daf mel ne jugam moo ëpp solo. mi ngi mel ne rek ñu teew ci ab bërëb ñu ne xew maa ngi ni ñëpp teew nan ngay naxarlu kenn ku teewul. Hmm. mais bu ko mbooloo ma yëgee bu ñu amee fula na la yow. yamal ki teewul mën naa am ngànt mais ki ah. teew ba pare te te te ni ñu ni ñu ni jot mu ni ràjj. waaw mais ki yëkkati nit ñi tamit est-ce que mu jaroon mu leen yëkkati aussi parce que ngëm-ngëm aussi tamit du ci. kenn ko forcer daal. du lu ñuy forcer. daa am loo xam ne ci xol la. dëgg la. te ci aussi ci télé la ñu nekk quoi ci image des tamit y a des trucs yoo xam ne aussi. ki koy santaane moom xamul dara ci image. waaw dëgg la mais pour man nit ñi toogoon tamit ñu màggal suñu Tuubaa mu du woon wàññi. lu fii bu ñu cadré ba pare tey su ma jógoon rek moo du mere ma. waaw waaw su ma jógoon toogaat moo du mere. des fois aussi aussi il faut que ñu xam ni télé di doxee. te aussi tamit pour être professionnel aussi tamit ca pas-pas ak sa ngëm-ngëm. boo xasee tamit nga koy lii parce que ñi lay seetaan. macha allah ku am fu mu faree. ku ne daa am ku mu gëm ku ne daa am ku mu yaakaar. kon yow toog da war a rester professionnel. mais pour man li oustaz Modou Fall def ak lu ko mën a yëkkati ak lu ko mën a tax a jóg. Mhm. pour man lu mën a tolérer la bàyyi mu jàll on passe à autre chose wax ci leneen mais pour man jarul. di réyal wala ngay ut loo ko ci duutee baaraam moom nag dafa mel ne ku weex dunk ndax at mu ne ñu utal ko benn. ñu utal ko benn waaw. aywa mi ngi noonu waaw daaw de moom nee na woon daal li muy def ku mu nga taal sa gaasu maam toog ci. moom ma ko fexoon daaw ca koor ga jërëjëf euh, booy Modou Euh, vraiment booy ñu ngi koy jaabaa njolle ci kii bi man mii bokkoon naa ci ñi ko wax dëgg yàlla doon naqarlu mais bi may génn dañoo toj otoom garaaw dama ma ne garaaw loolu moom ngànt la parce que dañoo toj sa oto jógal nga jóg xam nga euh, euh, sooy bu mm. chaque jour bala ñoo wax ne dina war a xool xam nga dana xamuñu woon ni otoom dafa toj man mm. damaa jékki-jékki rek gis ci tiktok bi xam nga murid dafa xobe mm-hmm. te murid dafa am noo xam dafa ko mel ci Cheikhul Khadim sëñ sëriñ Tuubaa nga màggal ko mu màgg nga ñàkk ko màgg lay màgg. Mhm. ndax dafa màgg ba pare loolu lëbët la. Mhm. Euh, usman Sonko wax na fi wax boo xam dañ koo dagg ndax dañ ku dee sa yaay juraat. te loolu sax du ci am. waaw te eggalewuñu loolu. mu indil ko ay problème mhm. kii dafa jug kenn xamul li tax mu jug ndax bi ñu waxee màggal sëriñ Tuubaa rek moom ñëpp jug nañ taxaw moom jug na dem parce que chaque anne moom xam naa nag li ko dal nag metti na. ndax chaque année ñu ñu otoom ñu toj ko wala ñu yàq ko dañ koy ñaanal ku koy def tamit nag ko bàyyi mais wax dëgg yàlla mën gisuma ci loo xam ni. Euh, garaaw na daal parce que tamit ku ne am nga sa yëg-yëg ku ne ni nga yëgee li nga yëg moo wax nga ko léegi nii. boo toogee ci milieu te tey man maa ngi ni li may def nii di déplacé wu fu ne dama di ko nibi nii bi tey du neex ki nga xam ne moom moo di euh, mu Diouf parce que cadré na ba pare ah. te tamit ñoom tamit aussi noonu la Omar ko gën a sonal maag waaw surtout man voilà te loolu te euh, surtout man kon donc loolu man gisuma ci benn kii wax dëgg yàlla te kenn ka dafa nekkoon loolu loolu am na dafa daje xam nga affaire bu dajee dafay doy waar. dëgg la lu de lu dajee comme man tey bu ñu waxoon dara rek ma ni bëri dem ci def def loo xam dina ko sulul noonu mm. fekk dafa daje lu daje la d'accord kon nan ko ko jàppalee nii dafa daje rek. dafa daje voilà dafa daje faa tëjeeg otoom toj. d'accord voilà. Euh, Adja ndax ki ubbi large bi moo moo ki weer Moodu wala booy yee ndax Moodu bi ñëpp jógee nag daa toog waaye biñ ne ko nag sa oto bi ah. non Moodu toog na diir ah? déedéet. Hmm. toog na biir xam naa Moodu dina la ko naa toog na diir après mu jékki-jékki daal di jóg. man ndax jaroon na ay attaque non jaru ko pour plusieurs raisons. parce que Oustaz Modou Fall man dama koy gis tout le hmm. la muy wax ci Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul sax. Hmm. gis naa murit boo xam ne mënu ko ci wax xamu ko ci jàngu ko ci. Hmm. kon kon man. mais mokkul bay di da koy yàq de. waaw Modou Fall saa yu duggee ci xasida Sëñ Tuubaa yàq na ko. kon xam naa daf maa gën a mokkal kon kon kon daf gën a mokkal. mais daal lu mu ci mën daal day yàq rek ak ba day yàq yow moom Moussa sa doom bàjjan la war loolu day yàq rek mais mais man man daal pour man nit ñi nañ bàyyi nañ bàyyi di xool lu ñaaw gis nga heure boo xoolee lu ñaaw lu ñaaw rek ngay gis parce que mënul toog ci télé bi tout le temps di wax ci euh, Cheikh Ahmad Bamba ba loolu ñëw mhm. ñu ne ñii ni dafa toog yéex a jóg ñii ni dafa jóg dem yoonam man dama koy nangul gis nga nit ñi nañ bàyyi di ñaawal li nga gis rafetal ko ba ngay gis contraire bi mhm. man noonu sama perception loolu la mhm. damay gis lu rafet tey ni dafa rafet ba ba may xam ne lii lu ñaaw la wala may gis ni lii lu ñaaw la mhm. nañ bàyyi di ñaawal macha allah vraiment jërëjëf Mbouba Dialé ala ah ah si Dialé lu seen problème hmm. non non bokkuñu maam ah bokkuñu jërëjëf alaaji euh, seetaan nga video bi ci réseaux sociaux yi ay attaques am na am na ñu koy defendre déglu nga plateau bi loo jàngat yow waaw man waa ji doon wax laay njëkk a ñëw man. parce que waa kan la mooy waa ji wax ne ku ku ñu màggal sëñ Tuubaa jóg leen. waaw mi ngi mel ni rek. sëñ bi woote màggal ñun ñëpp ñu dem tuubaa nga dem ba Touba naan ku bëgg sëñ Tuubaa sa loxo ci kaw. te nit ñi paas nañ. <laughs> dem ba Touba yow moom yaa xamut ku bëgg sëñ bi. Euh, waaj ci boppam si defe naa ni ña toog di seetaan seen tele jàpp ko di ko déglu moom ñu bëgg sëñ Touba lañ du nag dañuy jóg ngir wane seen bëgg sëñ Touba nekkul ni parce que bañ ko jàppee di ko seetaan rek lañ bëgg sëñ Touba ña toog ca jotaay ba mhm. bañ fa toogee lañ bëgg sëñ Touba parce que Mourou Fall defe naa ni bañuy wax émission bi xamal nañ ko ne ko diw la ñuy invité donc bu fekkoon ne dafa nar totoog du ñëw bay jóg mhm. c'est que il faut nit ñi euh, di xalaat ci angle boobu hmm. beneen bi may ñëw ci manque de professionnalisme Modou Fall hmm. parce que manque de professionnalisme man boobu ci leneen la mooy sa oto toj na Mm. parce que bu ma toogoon fii ñu ne sa oto bi toj na du tax ma jóg parce maa ah, ngi def émission bi parce que émission la def quoi dañu war a gérer suñu émission ba pare boobu nga dem constater xool parce que toj na ba pare sax ki ko woo nag est-ce ki ko woo ki ko woo tamit xam nga tey bu la woowoon ne sa oto toj na Moodu waru ko def daf ko war a gérer donc mu ka ko woo du professionnel ki nga xam ne moo jóg tamit du professionnel ok parce que tey yow ak. lu mu demee nga ñi nga xam ne ñooy yi lay seetaan. ki doon filmé non non ki doon filmé nit ki. Euh, maanaam réalisateur bi mën na ko ignorer. mën na ko loolu loolu mooy li nga xamante ni bi loolu mooy li nga xamante ni bi moom mooy mbir mi. Mm-hmm. naa ni daal. wax nañ ko ne ko sa oto toj toj na tey jii bu ñu toog ba jàng Moodu daal di woote na ma saa sa oto toj na loolu xam nga jarul moo koy wax. parce que toj na ba pare sax. Mhm. mën lu ma ci man mhm. donc kañ nañ bàyyi ba ma pare su ma wàccee ñu ne ma kat sa oto bi toj. wala ña fa nekk jéem a dem rek léegi te kat dañ ko toj na ba noppi xaw ma jàpp nañ booyee léegi loolu. Mhm. lu tax ñu génne man maanaam sax ñàkk a respecté bi ñàkk a respecté émission bi quoi dañ ko ñàkk a jox cër. parce que loolu warta am quoi. et puis et yooyu man ci côté boobu laay waxee mais nag leneen li jëm ci wàllu. Euh, kii nañ xam ne ña fa toog ñëpp. bëgg sëñ Touba lañ toog am kenn koo xam ne. sooy bu kër ba pare sooy bu dafa mel ni Pape Cheikh Diallo xaar na lii parce moom moo leeral après bi. waaw après Modou Fall ñëwaatee. la ni comme nit ñi dañoo doy def leneen. xaaral ma leeral lan moo tax nga jóg. parce que xaaroon na réaction sénégalais yi réaction yu négative yi. Euh, sooy bu kër damay seetaan Ablaye Mbaye Pia ñu ñu takk micro mu bëgg a maye ji am ñuy wax ci sa am sëñ Abdou Khadir mu bëgg a jóg mënut a jóg. mu naan ku ma yeew. dégg nga ku ma yeew am na télé yoo xam ne. yeew nan ma. yow jóg ah, kon kuy ñëw di yëkkati nit ñi moo la warul yëkkati. Ah, yeew gi yeew yi leen ma. il faut ñu invité aussi respecté tam yi. ay jug mais am na koo xam ne mënul jug. am na koo xam mënul jug comme mais mi ngi wax rek. <laughs> d'accord kon mën nañ kii kon mi ngi noonu. Euh, Boy Modou loolu la woon victime nga ci internet bi fii moom victime nga. tey jàmbur bi nga naan la sama dëkkandoo sax fële caaro yi. en tout cas. mi ngi noonu euh, jàmbaar la boroom xam-xam la waaw boroom la en tout cas daal. Euh, kon loolu la indi woon ci victime nga nag intéressé taxul nag ñu kii la xam nga fi dañoo ragal atta nañoo dem naan nag wal fajir dañoo dem di def tem ci ñun da ngaa nekk victime ñu teg la fi di la jàngat maanaam kenn tegu la fi di la di di la koj korojooj waaw damay waaw déedéet attan naa dem def interview naan waaw kii Modou Fall xam naa ko day defante maanaam victime nga victime nga dañu la teg fii pour waaye dañ fee mësa ba indi victime bay leeral nii xam booy Modou Fall rek voilà euh, léegi Assane Diouf dañoo yàq ay waxam est-ce que xaj na na man kay damaa bëggoon a wax xam nga ci naxaate googu gars yi di waaraate di def rek laa bëggoon a ñam kon Assane Diouf yi ñu bàyyi ba ba jeudi yi genre dóor la rek lan euh, gis nga béti hmm? dafa am koo xam ni dafa am koo xam ni ba jeudi incha allah xam nga dafa am koo xam ni daraan waaraate bu ñëwee day gas ñetti kàmb daan ne bii bu sëñ Tuubaa ngi bu maam alaaji Maalik bu Seydina Limaam ñu xool nag buy jëkk a fees ci xaalis lii loolu ah waaw bu sëñ Tuubaa ngay dem de waaw ah, bu kii ngay ñëw maanaam xam nga maanaam nit ñi pour ñu wane seen bëgg-bëgg moom fi moom bëgg-bëggam defar bëgg-bëggam maanaam nga say def say kàmb naan waaw bii léegi lool bii moo gën a lool ah laa ilaaha illallaah ñii duñu moroomu ñii ah. maanaam dóor kat dafa am ñoo xam ne ay rajo mooy mooy jànkar yooyu rek mooy waaraatekat yu mbedd yeeg yooyu rek xam nga c'est que dafa am waaraatekat yu bari yoo xam ne seen waaraate yëpp ay folklore. waaw mais nag alaaji mais nag alaaji boo boo duggee foofu nag. Mhm. da ngay waabale ci ñoom ñu ci bari ci ñoom mag ñi la def entreprise. waaw waaw si la ñuy liggéey. waaw waaw mu kii kay wax na ma ko Mame Mor Mbaye Mbaye nee ma. ah, ah, ah, ah bàyyil Mame Mor Mbaye moo ne moo ne moo ne yoonu géej gi ci laa étage. ah waaw waaw nee na yoonu géej gi bay étage yoonu jàmbur. ne ne képp waa ci maa ngi bay xaal nee maa ngi bay xaal am naa ci ñaari oto. <laughs> mu ne aw ma ko ci lu nett li tukkub jàmbur képp <laughs> mm, waaw. waaw wax dëgg yàlla barke mag ñi la rek. waaw di nga di nga di nga son bu ah. di nga man dafa am loo xam lu tax Modou Fall ma comprendre. man dafa am loo xam ne man damay faral di dem ci béréb yoo xam ne lii diine. Uh-huh. mais man daa am dëbu assis yoo xam ne ku ci bëgg a yóbbu ma bañ. Mm. ku bëgg deewu waaw jugal ñaari yoon ñett nga bëgg lii nii c'est-à-dire que am ñoo xam ne day day lii quoi ku bëgg lii nii alors que affaire du foofu pour man

bëggee soxla bu la wóoree di bëgg Sëñ Fall yàlla xam na dañuy joué ci waaw fi ma d'accord ak Omar moom man Omar man laa wax de hmm. buñ toogoon fii ñu ne ku bëgg bétti mbuub jógal taxaw bu ñëpp jógee ma jóg waaw parce que wàññiwu la dara liñ naan sukk du la tere yóbbu say om jóg ku ku màggal diw ku bëgg diw jóg ñu màggal ko bu ñëpp jógee rek. jógal non waa ji dafa ne jóg jóg leen ñi ci plateau bi. waaw ñi toog sax seen saal jóg leen ah. saa wax xam fa laa koy rejoindre. général mooy émission boo xam ne mooy mujj a jeex yi xew. ñoom jëkk pap ca naan xëdd mais waajo koy maanaam képp ah ñoo indi ñoo indi plateau guddi maanaam képp ku mu jaral képp ku mu jaral mhm. jaral ngay seetaan ba heure xëdd fonk fonk sëñ bee tax kooku jërul yëkkati wallaay azim ah, waaw gars yi dañ koy topp ba yenn heure yi waaw mhm. léegi nag di nga soñ man dafa am émission yi am yëpp yëpp baax na mais man format Walfadjri xamul da mu gën ma intéresse di mhm. nga bu diine ji joxe jote nañ ko jox aadi mhm. bu politique bu jotee ñu jox ko politiciens yi bu sport bu joxe ñu li mais plateau yi des fois nag li ci am aussi tamit liy indi yooyu yëpp mooy mbalax maan yëpp a ngi ci diine yëpp a ngi ci biir waaw ah. ah. ah. Taïb Socé de Taïb Socé de ba mu ko kaasee la ñu ko demoon. boo ma fa tegee ma yëg ci kaw. nga ne far nga teg ma fan. jël diina ji teg koor gi Sidi Lamine woo na ma fi ma animé plateau maak Oustaz Assane da nga ko fàtte. ma ah. mën fa wu ñëw wax ca la ma ca war a wax waaw waaw kenn reewul yow rek yaa doon ree. man ko jox waa diine. man de bu ñu ko xam ne waa ji damay mën ko jubbanti. mais tey jii da jël ak nitu diine boo xam ne kanfoori la nga def fa tudd lu mel ne man wax na kii euh, euh, kii xamu ci dara man xaw ma ci dara non dafa dama koy tooñ xam nga man xaw ma ci dara mais mais problème lu ko neex mu tari sax mu jël wal dugg ci xoyaat xam lu mu doon dama ah, xanaa dafa am xanaa dafa foog dama koy tooñee saa Modou Fall bu dee baytu Seydi Hadj Malick Si maanaam jekku na ay xasida yi muy waxtaane ba jekk ko du ko yàq bu dee alxuraan ji wax dëgg yàlla alxuraan ji seet wecc lay wax. Mhm. mais mbay bindum sëñ Tuubaa bi mokkalu ko. léegi saa yu ci duggee day yàq. waaw day mi ngi mel rek tey murit mi ngi mel tey Gana Messere nga jox ko benn euh, kii xasida Seydi Hadj Malick su ko mokkalul mën na ko yàq. dëgg la moo tax ma ne ko des fois mu dugg ci daaneel murit bu mel ne yow te xamul lu bari. mais da xam ni kii xamul li muy wax. fekk yow fi nga daanu waroo woon daanu. <laughs> yaa daanu ko a def. kon nuyu maa ngi lay nuyu di la encouragé. man yow laay neen ñoo ngi koy nuyu. man yow laay topp. neen ñoo koy toppul kan yow. man waaw man moom man moom wax dëgg yàlla maa ngi dajeeg ay vidéo nag. di ko seetaan non non eh. <laughs> contraire ku dem sama chaîne. dialogue bi muy def hmm? <laughs> moom dañuy faamu ma ku dem sama chaîne fekk fa ay dialogue yu ma def ak Oustaz Modou Fall ku xam sama dialogue yu njëkk yi sëñ Cheikh Tidiane Sall Maktoum sëñ Sam Mbaye Oustaz Modou Fall mii mi ngi ci de ba léegi damay def ay dialogue su ma amee ay kàddoom dama koy jël déedéet dama koy jël <laughs> non non non barke bi yàggul rek mi ngi noonu di nuyu uh, borom xam-xam yëpp yoo nga xam ne ña nga foofu ca télé ba tey góorgóorlu ca diine Assane ak ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di wax ne ñoo bokk daara ji ñun ñoo man man man yàlla moo def ma bëgg Pape Hann waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaw yéen du ak borom xam-xam ya nekk yëpp ñoo ngi leen di ñaanal di wax ne ku fa nekk rek diine nga fa toogal yal na yàlla barkeel jeex na